Thank you. nga génnee benn single euh, bu jëm euh, ci wàccaayu màggal gi est-ce que mun nga dellu si waat un peu ci single bi naka la la dikkee ak euh, yan parole nga siy wax. single bi nag mi ngi tudd Xaadim c'est sur la route du màggal rek maa ngi koy liggéey depuis ñetti at a nii ak genn wàll. Mm-hmm. ma nekk ci di ko liggéey di ko tabax di kii ak yooyu xam nga sëñ Tuba moom mbiram yàkkamtiwul dara. lu jot. rek yomb xam nga damay rappeler benn historique boo xam ni c'est très important ñu dellu si histoire à l'histoire parce que le 5 avril 1974 man may musicien chanteur bi jëkk a woy Sëñ Touba fii ci mim réew Sénégal mu yàggul lool te ba ma koy woy en 74 man xaw ma woon kuy Sëñ Touba. mais ba ma ko woyee ba génne woy boobu en 74 dafa mel ne dafa am lu samp fii ci suma dënn bi du fi jóg te dootu fi jóg ba ba ba may génn àdduna yàlla na ma di taalibe nag taalibe sëñ Touba bu wóor te wér du koy faral di wax parce que comme niñ koy waxee am na yoo xam ni ci sa biir xol lay nekk nekk sa xel Euh, te loolu dafa dafa dafa ma concerné dafa ma maanaam dafa am loo xam ni suma relation la entre man ak sëñ Touba bi nga xam ne foofu moom laa ci moom laa jébbalu mhm. donc duma koy faral di wax mais tey mën naa leen wax ne euh, le 5 avril 1974 ba 2019 lu yàgg la presque cinquante ans après mhm. ma génnewaat benn single bu ñuy wax xaadim pour yeesalaat sama njébbal ci sëñ Touba. Euh, et puis joxe ko comme addiya ci màggalu 2019 bii ñu dem kooku bu ñu jëm nii. kooku mooy li nga xam ne moom laa doon togg depuis quelques années. Euh, jébbal ko nag waa Sénégal yëpp waa adduna bi yëpp vraiment mu génn aussi depuis une semaine et demie vraiment euh, nekk mbégte ci xolu sénégalais yu bari. parce que ñu ngi may bind bind yu am solo li leen intéressé aussi li nga xam ni moom mooy liñ may wax man mooy euh, woy bi dafa différent euh, ci li ñuy faral di dégg mm-hmm. may leen waa expliquer leen ma lan ngeen di woye différence boobu donc ñoom public bi ñu expliquer ma ne euh, sëñ bi ku tedd ki mën nga ko woy sans mu am yenn pecc yeek yenn kii yeeg yooyu donc clip bi ñu def nii amul yooyu yëpp parce que ba ma koy woy en 74 dama daan wax xayrulaa xayrulaan bi yaa Mbàkke Cheikh Bamba jërëjëf am ni Moustapha jaraw lakk xam nga Touba Touba ba ma ko woyee euh, ñu jëkk ko génne suñu télévision fii en noir et blanc mu daan RTS ba ma ko woyee ba pare dama daan génn Gueule Tapée di dem Sahel il y cent ou deux cent cinquante xale yu ma daan topp di way di wax Touba Touba. Touba Touba en soixante donc am na loo xam ni daal suñ Touba defal nañu ko quelque cinquante ans après ñu ko koy delloo rek parce que sëñ Touba léppam ci tekk ak tey la. parce que mooy li ñu mooy woy bu bees bi. li li ma wax rek mooy ba ko tubaab yoon noonoo ngir li mu fonk réew ak diine ba tax fu mu sëkkib jéego teg. ñépp toppali ko ku teg ngir tegle ci jasawul sëkoor ñu ne xëy na ko kii gi bisub talaata namm ci géej naan xatmata yan ba ñu noon xutbu ya ak labdaliya te antu ko moom Cheikhul Khadim moo ko fabraw gaaña donc loolu yëpp di ay tegtal te ba ma koy woy 74 xaw ma loolu lépp mais euh, yërmandeem ak ak baaxaayam ak tekkam ak teeyam moo tax rek ma xam loolu tey lu ma lu ma mel walla ku ma doon ñu xam ma ci àdduna bi yëpp mm-hmm. euh, ginnaaw yàlla ak yonent bi sëñ Touba la d'accord donc jërë jërëjëf di Bamba Jinaan si la eh, sëriñ voilà xalif bi ñëw sëriñ Mountakha ñu koy ñaanal mu def nag lu rafet loo xam ne ñëpp a ngi koy rafetlu yow gis nañu say way itam da nga bëgg jàmm te da ngay way jàmm mu mel na jàmm boobu ñëw na parce que sept ans après président Macky Sall ak président Abdoulaye Wade daje woon nañ joxante loxo démb it ñu daal di koy firndeel mu invité ko ci pale loolu ban analyse nga siy def ndeysaan ndeysaan dama naan ndeysaan rek <laughs> waykat bi buy way bu amul ndeysaan dañ ko naan ah way bi daal amul ndeysaan li ma gën a frappé may gërëm di sant bu wóor te wér sëñ Muntaxa Mbàkke yàlla na fi yàgg lool lool lool te ànd ak wér di ñu gunge rek nii rek Mbàkke mhm. c'est magnifique bi ma gisee image bi nga xool les deux chefs d'état moo tax digal rek moo wóor mhm. nga xool président Macky Sall nga am nga am nga mën a am lecture jàng nit ki ci kanamam nga xool yërmande bi bi doon dégagé ci moom bés boobu nga xool l'ancien président de la République maître Abdoulaye Wade ñoom ñaar ñëpp di sama xarit man mii nga gis maître Abdoulaye Wade nga xool yërmande bi daw ci ci ci ci yaramam ak ci kanam seen kanam sëñ Mountakha taxaw jubale leen ba ñu ànd booloo parce que tout a démarré à partir de ce jour-là mooy masalik masalikul jinaan bi donc sénégalais yëpp kontaan ci mag ndaw góor ak jigéen ñëpp a kontaan ñëpp a bëgg may vraiment dolli di delloo aussi di gërëm vraiment sénégalais yëpp parce que jàmm dafa important dafa am benn phrase bu important bu ñuy wax ci woykat mu ne tant qu'il y un homme pour chanter il nous sera permis d'espérer un jour la paix tant nit mi ngi way yaakaar nañ ne ñun jàmm dina mos a am moo tax woykat c'est très important ñuy bàyyi xel ci woykat yi donc loolu dafa am importance pour man ma dolli si donc di gërëm bu wóor te président Macky di ko gërëm bu baax du fond de mon cœur di gërëm bu baax président Abdoulaye Wade di fond de mon di leen gërëm ñoom ñaar ñëpp mais nag di gërëm ci njëkk bi mooy sëñ Muntaxa vraiment di ko gërëm ci loolu ma gis ni avant-hier rek dajewaat nañu président Macky Sall invité président Abdoulaye Wade au palais de la République ma gis image ma ni ah sëñ Touba amul morom. mosut a am morom. Mm-hmm. te du mos a am morom. <laughs> jërëjëf Serigne Touba.